Omar yal na ko yàlla doon doole gërëm moo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ne ba sunu maam Adama wàccee bàyyi ko àjjana ñëw suuf sunu boroom da ko wax yu ñeenti baat maanaam yeenti wax ne ko nag sa mbir ak mbirum say doom ak say sët yëpp yëpp génnut ñeenti baat yi maanaam génnut yeenti wax yii am na ci baat boo xam ne man maa ko moom am na ci baat boo xam ne yow yaa ko moom kuy sët sëtit mel na yow moom ko am ci baat boo xam ne daa sa digganteeg nit ñi am ci baat boo xam ne daa sama digganteek yow aadama baat bi nga xam ne man maa ko moom moo di nga jaamu ma man rekk bañ ma boole kenn mbaa na baat bi nga xam ne yaa ko moom mooy sa jëf lépp loo jëf rekk moom laa lay fay baat bi nga xam ne moo dox sa digganteeg man moo di nga di ma ñaan yow jaam bi ma di la may man sang bi baat bi ci des nag dox sa diggante ak nit ñi mooy yow kat yow laa yónni na nga maanu kenn ku ne nga jox ko àqam ba mu mat buñ jàppantee àtte leen kenn ku ne nga fexe ba àqam àgg ca moom kenn tooñ sa moroom mbaa kuñ tooñ na nga ko fayul